salaamaaleykum salaamaaleykum à tous nos amis internautes de votre site d'information sans limite TV c'est toujours un plaisir di ànd ak yéen comme ni ma koy faral di waxee euh, ci seen i différentes émissions émission bii nag euh, gise ak la rencontre avec tey nag dañu war a waxtaanee football ah donc parce que tout simplement suñu équipe nationale bu Sénégal mi ngi fële ca Qatar euh, ba sax dañu ko daal di dóor démb Hollande moo ko dóor dóor démb deux buts à zéro tey ñu dalal ki nga xamante ni xam-xamam dafa ci jëm ci wàll wi. Euh, maanaam wàllu football di coach moor cam di euh, manager sportif conseiller sportif et représentant sportif maanaam li ñu bëgg a waxtaanee yàlla may na ko ci lool mais quand balaa ñu sori ci waxtaan bi dama ko nuyu baax na dégg moo ko internet sans limite ñëw ci waxtaan bi sëñ moor maa ngi lay nuyu la ziar. waaw sëñ Ousin maa ngi mm-hmm. lay fay. Mm-hmm. di fa jaaree di la nuyu di la nuyu suñu mbokk di nuyu suñu mbokk internet yëpp. Mm-hmm. ak euh, ñi ma fekk ci bërëbu liggéeyukaay bi muy sans limite. Mm-hmm. di leen nuyu euh, di leen fay di leen wax euh, pare nañ pour ñu waxtaan ci li nga xam ne moo ñu ñor muy suñu équipe nationale. Mm-hmm. d'accord alors euh, agence bi nga jiital wala la wala kuréel bi nga xamante ni moom nga jiital mi ngi tudd Pro Perfect Sport. Euh, vive le sport autrement xam naa loolu dinañ tànn bés boo xamante ni dinañ ci gën a yaatal. Ah. donc voilà mais ci li ñu war a waxtaanee muy équipe nationale. déjà classement bi bi ñu indee classement bi avec l'absence de Sadio ni bëri woon na ay polémiques déjà onze de départ yi ban appréciation nga ci am d'abord. waaw comme sénégalais yëpp xam nga ñun moom yàlla daf ñoo may ñun moom euh, li ñuy wax tout le temps nous sommes 17 millions. Mm-hmm. mais muy mag ak ndaw muy. Euh, góor ak jigéen. ñun ñëpp ay coach lañ daanaka moo tax ñi ñuy tooñee ay euh, au temps de Bruno Metsu la woon. di Bruno Metsu di tàggat di di di waaj a ñëw fii je pense euh, le roi Claude le roi moo ko ne woon yaa ngi dem dëkk boo xam ne ñëpp ay coach lañ. donc ku ci nekk rek comme ñëpp ni ko gisee rek euh, mooy suñu ko dañoo am coach boo xamante ne. pour nga mën a xam li muy teg daa xaw a jafe. Mm-hmm. waaw li ñu ciy xam as tuuti lay doon mais mais doon lépp. comme ñenn ñi xaw naa am nag xawoon naa am. tuuti mbetteel dégg dégg bi gën ah, waaw xawoon naa am tuuti mbetteel nag. Mhm. ci yenn choix yi. même bu fekkee xamoon nañu sans Sadio Mané nag moom potentiellement ñi ko mënoo remplacer foofu noonu bëriwul. Mhm. muy Crépin ak euh, Ismaïla Sarr. Mhm. mais donc suñu problème mi ngi gënoon problème choix bi mi ngi gënoon xaw a nekk ci côté milieu terrain bi. ak ci ak ci côté défense bi tout en sachant que ni. suñu latéral gauche bi nga xam ne moom la ñëpp xam muy Saliou Ciss yàlla def na ni mu jéewul mu jéewul mën a ñëw mm-hmm. mais beneen bi ñu dem ba ci biir xam ni Ismaïla Jacob dañoo am pro dañoo amoon problème administratif à deux à trois jours mm-hmm. donc xamuñu woon ni lan la ñuy mën a teg moo taxoon affaire bi xawoon euh, na ma xelu nit ñi ñi lan lay teg mm-hmm. mais xawoon naa am mbetteel tuuti ci ñaari choix yu xaw a défini waaw benn choix bi jiitu muy trois milieux défensifs yi c'est-à-dire bu ñëwee trois milieux défensifs cest prototype type. mooy seen poste son des milieux défensifs mm-hmm. à savoir Nampalys Mendy Gana Gueye ak mm-hmm. Cheikhou Kouyaté même si nag dans l'animation de jeu mm-hmm. parce que mën nga teg trois ne trois trois milieux défensifs la mais bu ñuy jouer rôle yi dafay wute léegi donc bu ñu doon xool ci côté défensif dañuy nekk trois milieux défensifs mais bu ñu yoree bal bi di di di di attaqué dafay nekk deux sentinelles à savoir deux milieux défensifs ak benn milieu offensif à savoir Gana Gueye bu ñu seetlu bu baax Gana Gueye ci milieu terrain bi moom moo ci gënoon offensif parce que voilà moom moo tax moom moo ci amoon yenn yenn tiir yi yi nga xam ne góol bi jàpp na ko moom moo ci gënoon offensif même bu fekkee loolu xam nañu nekk rôle am première mm-hmm. boobu mooy mbetteel bi jiitu beneen bi jiitu mooy euh, fait que mu tànn Euh, Pape Abdou Cissé man wax dëgg yàlla mun mbetteel la ci man yaakaaroon naa Kouyaté dem ci ginnaaw fi nga xam ne yàgg na faa fubal mhm. même bu fekkee tamit du poste am mais li mu fa joué moom moo ëpp mhm. kon mu dellu foofu noonu ñu jël euh, euh, yow Abdou Abdou Diallo mhm. mi nga xamante ne am na am na potentialité wu jouer latéral gauche ñu jouer loo ko latéral gauche même si xam nañu du poste de prédilection mën na ci dépanner donc foofu laa amoon mbetteel donc la preuve. mais à la place de de de par exemple Cheikh Kouyaté bu ñëwoon ci ci ci défense bi kan nga yaakaarul moom moo koy remplacer. non parce que milieu bi du ñàkk boobaa da ngay replier sa ñaari milieu défensif à vocation à savoir Nampalys Mendy ak Gana Gueye. Mm. léegi foofu moom mooy xool ban milieu offensif lay teg. kan ngay proposer foofu. bon choix yu bëri nañu. mën na teg euh, bon ñun ki ñu xam ki nga xam ne moom moo ci gën a offensif xam nañu Pape Matar mm. parce que am na ay avantage boobu noonu. Mm. mais xëñ na coach bi moom choix am. c'était mu limiter dégâts au milieu de terrain parce que xamoon nañu force Hollande seen force yëpp mi ngi jógee ci milieu terrain bi mm-hmm. d'autant plus que ça nous a donné raison parce que yow ci milieu de terrain bi moom moo def passe décisive bi mooy De Jong mm-hmm. te pourtant loolu li ko indi peut-être xaw ma ndax mën nañ cee wax léegi wala ñu mm-hmm. bàyyi ba question yi gën a suivre ñu topp ci mais foofu la jógee parce que blessure Kouyaté ba mu génnee De ci lay doog am liberté boobu noonu parce que Kouyaté moo doon empêché De Jong mu def loolu mu génnee mu dugal Pape mu mu dugal euh, autant pour moi mu dugal euh, Pape Gueye mm-hmm. Pape Gueye en fait moom moo waroon def marquage marquage individuel bi bi yaata doon def ci doyong la preuve bi mu ko defulee bu fekkee nit ñi am nañ foto bi bu ñu ko génnee bu mu ko defulee dayoon ci la am liberté wu xool ba mu neex ko mu def passe boobu noonu passe mm-hmm. boobu noonu moom moo indi première bi mm-hmm. donc choix boobu noonu mm-hmm. mën nañ ko nangu loon Aliou parce que la preuve boobu dañoo automatiquement dañoo enquêté kon donc foofu moom amoon na raison ci kaw ci kaw nit ñi voilà alors ci ko ci côté ndax li mu fa teg kon baax na pour bi waaw ci kaw ci kaw parce que boo xoolee système bi lépp moom moom il a pour un 4 3 3 4-3-3 mooy ci ñi ko mooy 4 défenseurs 3 milieux terrain ak trois attaquants léegi ci ñett attaquants yooyu ngay wax euh, zone boobu mi ngi jël Ismaïla Sarr mu teg ko place saa Mané jël euh, ki nga xam ne mooy Boulaye Dia mu nekk ci pointe attaque bi jël Crépin teg ko ci beneen côté bi donc foofu noonu si je ne me trompe pas il faut tamit ñuy jàngat dara avant ñuy ñuy ñuy yegg fenn fi bon xam nga ñu ñëpp ay coach lañ mais am na ay spécialistes yoo xam ne ñoom xam nañu lii màcc na dafa am loo xam ne dañ koy fàtte c'est teg na ñooñ ci kaw mais football du rek nga teg euh, ay joueurs ci ci ay poste rek na leen joue leen. Mm-hmm. dafa am loo xam ne moom la ñuy woowee animation ak circuit de jeu. Mm-hmm. circuit de passe bu ñuy defan fan la ñuy jaar bu ñuy attaqué tam fan la ñuy jaar léegi boo gisee Ismaïla Sarr remplacé foofu noonu Sadio maane Ismaïla Sarr c'était yow ce n'était la première fois muy joué côté boobu noonu mm-hmm. mais lim mu ko joué bëriwul ñëpp xam na force am mi ngi nekk côté droite bi donc suñu couloir boobu noonu Ismaïla Sarr football ñëpp xam na ni Saliou Ciss moo amoon habitude dafa football mm-hmm. ak Sadio Mané. Mm-hmm. donc amoon na cohésion ci mm-hmm. ligne boobu nga xamante ci kaw ba ci suuf la ñuy yegg Sadio Mané mooy décroché. Mm-hmm. participer ci jeu bi dugg. à l' intérieur def dédoublement de fonction dépassement de fonction autant pour moi. bu ko defee Saliou Ciss mën a jàll. bu bu Saliou Ciss jàllee ñu mën a joué ci Saliou Ciss moo taxoon boo xoolee suñu jeu bi mu yàgg doon ba ci kaan bi. Saliou Ciss tout le temps ci ñaari latéraux moom moo doon gën a offensif. parce que Sadio bu bu bu génnee bu génnee zone am Saliou Ciss day mën a jaar foofu noonu mais dem bi ñu commencé boo xoolee Ismaïla Sarr mi ñu fa teg ak euh, Abdou Diallo mi ñu teg foofu noonu. amaana mën na ne c'était la première fois voilà c'était la première fois ñuy jouer kon y avait pas d'automatisme amul woon animation boobu noonu donc loolu noonu dafay péché ñëpp xam nañ ni Ismaïla baax na naam jour la bu baax la. mais du même profil que Sadio maane mi manqué donc lien bi amoon ci kaw bi waroon am ci kaw carrément cohésion bi waroon am entre ligne boobu noonu mm-hmm. amu ci ça c'est pas fait mm-hmm. parce que gis nga ni mu demee Sadio maane day dem ak du dem gaañu nag wér na dina bokk ak du bokk mm-hmm. amuñu woon temps wu d'autant plus que amuñu woon match de préparation pour mën a xam ndax ligne boobu noonu dina baax donc waxuma loolu encore une fois pour euh, jàppale coach bi ci li muy def moom a gën a xam li muy def dañ koy fay teg ko foofu noonu wan ni mën na ko moo tax mu indil ñu coupe d'Afrique bi kon loolu kenn du ko naataable waxuma ko parce que dama ko bëgg défendre mais dafa fekk dafa nekk ay situation yoo xamante ne bëgg gañe rek wala ñu ñàkk rek bu ñu tax xalab bëgg gañe bu mu tax tamit ñuy wax loo xamante ne warul mm-hmm. moom mi fa nekk gënuñu ko bëgg gañe mm-hmm. kon donc bu tegee loolu ci li mu jàpp ci li mu gis dafa yaakaaroon ne loolu ça faisait l'affaire mm-hmm. te bu ñu ko jëlee ci résultat pas résultat définitif mais bu ñu ko jëlee ci ci yow ci match bi ci ni mu demee mais moom li mu bëggoon am na ko xanaa nag dañoo xaw a manqué wërsëg may chance bi nga xam ne moom moo tax ñu dugal mais dañuy fàtte ni ñun ñoo ëpp occasion. Mm-hmm. yow occasion de but Hollande. Mm-hmm. ñun au sax am nañ quatre tirs cadrés yoo xam ne seen góol dafa tàmpi pour génn mm-hmm. mais ñoom amaana li ñu am yëpp dafa dugg mm-hmm. d'accord léegi bu ñu bu ñu bu ñu ñëwee ci ci kaaw Krépin Diatta parce que Krépin Diatta dañ ko xame woon bi muy nekk ci U20 yi dañ ko xame woon benn vivacité bu gaaw c'est vrai que nag mi ngi gën am benn âge yooyu ak blessure bu metti bi mu jógee mm-hmm. mais dañu sentir ni Krépin boobu woon ak Krépin bi dafa am dafa am changement dañuy gis il juste maanaam contrôle passé la doon def amul woon réflexe pour gaaw joxe bal bi. Mhm. da doon taxaw benn place rek contrôle passe contrôle passe comme kuy football genre euh, football comme je sais pas comme milieu récupérateur quoi en fait à la limite. comprendre naa li comprendre li nga bëgg waaw mais c'est c'est c'est euh, c'est tout à fait normal. Mhm. c'est tout à fait normal encore une fois utuma justification pour Crépin mais xam nga genre blessure bi mu amoon ak ci lancé bi mu nekkoon. Euh, blessure yooyu dafay jouer parce que boo xoolee joueurs yi ko xaw a am yëpp muy rupture du ligament croisé c'est-à-dire euh, li nga xam ne moom moo nekk ci ginnaaw genou bi maanaam ñaari ñaari ñaari ñaari sidditu ngand yooyu noonu maanaam ñoom ñooy croisé ba ñu dagg donc loolu pour joueur bi ñëwaat jaaga na il faut xarañteef bu baax ci ci ci médecin yi moom am na ko ndax boobu mi ngi mën naa ko fi mu nekkoon am na ko donc ñëw na boo xoolee yow absence am dafa am lu bëri loo xam ne dafa xew ci ginnaawam waa ji dafa defar beneen groupe mm-hmm. am ko joué place am mm-hmm. groupe bi dem ba pare gagné sans moom mm-hmm. donc bi mu ñëwaatee naa ko amul woon place am juste c'est-à-dire bi mu ñëwee dafa fekk benn coach boo xamante ne dafa ñëw fekk mu blessé donc coach bi mooy ni ko ko bàcc coach bi bi mu fekkoon foofu mu am benn groupe moom tam bu mu doon doxal comme Sénégal ni mu ko defee léegi bi ñu ko doxalee ñoo ñu doxal gagné maanaam moom mu war a ñëwaat mais euh, son retour ne s'est pas fait du jour au donc loolu boo ñëwaatee day jël temps loolu c'est c'est sur le plan tactique ak physique boo ñëwee sur le plan psychologique dafay jouer parce que yenn blessures moo mook damm ñoo yam dafa pour joueur bi ñëwaat rek automatiquement li mu amoon mu amaat ko dafay xaw a jafe ñun ak tubaab yee keneen ak keneen a ci yem ci ni ñu koy gisee ni ñu ko càmbaree gis ko ci football saa su nekk. Mm-hmm. léegi loolu dafay firndeel yow li nga wax maanaam mm-hmm. Crépin bu njëkkoon ak Crépin bii. Mm-hmm. dafa wute parce que Crépin retour blessure ba léegi da ngay gis ni day manqué vivacité. da ngay gis ni percussion bi mu doon am ak vitesse bi mu ko doon defee dangay gis ne day manqué. maanaam boo xoolee ba ci biir danga nga naan sax bu fekkee danga nekk xaw a da nga xaw a nekk psychologue du sport da nga na benn travail solo yooyu yëpp. psychologique boo xamante ne maanaam defuñu ko ci wala des na. wala soit ci état joueur bi la ba tey dafay jouer ak dutu blessure boobu noonu. moom moo tax xaw a wàññi xarefteefam. parce que loolu du Sénégal rek la ko wane. ba même ko mi ngi joué. mais ba tey da gis ni li nga wax noonu ba tey dafay manqué ci yoom par rapport ak Krépin bi ñu xamoon U20. Mm-hmm. en même temps aussi tamit Krépin bi ñu xamoon U20 tamit. si je ne me trompe woon fi ñu koy joué léegi nii. ci côté bi parce que Crépin en fait bi mu demee Bruges. Mhm. ci lañ ko joué ci ci ci ci côté bi. Mhm. parce que coach bi nekk Monaco nii nii. Mhm. pour Paul Clément moom moo fa nekkoon. léegi bi mu fa nekkee dafa gisoon euh, comme li nga wax sànq vivacité ak ak rapidité de Crépin. Mm-hmm. donc mu changé woon système joué à à trois défenseurs. cinq militaires dont deux pistons. Mm-hmm. mu reculer Crépin euh, mm-hmm. teg ko piston boobu fekk na mu gën a nekk xale fekk na équipe nationale ak fi mu jóge woon muy Oslo mi ngi doon joué comme neuf et demi. wala dix typique léegi le temps muy toog foofu def na fa su ma juumulee deux ans. deux ans muy joué loolu noonu. mu ñëw Sénégal des fois yow Aliou teg ko. Euh, ci ci yow ci milieu bi des fois mu teg ko ci côté bi. donc bi mu ñëwaatee Monaco tamit coach bee nee ñëw bi mu ñëwee tam il jouait pareil. donc boo xoolee danga naan dañoo dem ba dañoo changé registre changé poste am. donc ce qui fait loolu tam ci xale boo xamante ne parce que personne yaa ngi naan mag la du mag. ba léegi 23 ans la voilà 23 ans ci jour jour à partir de 30 ans ñi ngi wax. voilà ba léegi xale la. mais ci jàngat boobu noonu c'est-à-dire dafa jóge ci benn registre par rapport ak benn poste défini mm-hmm. léegi dem di jouer ci beneen post ak blessure mi yëpp mm-hmm. loolu yëpp mën na mm-hmm. new ma nag moom la parce que wóor ma parce que nekk mais loolu yëpp mën na jouer ci le fait que ni mu meloon melatu ko léegi d'accord alors bu ñu ñëwee ci euh, changement yi changement yi gars yi ni Bamba Dieng donc euh, boo xoolee li mu football bariwul mënoon nañu xool Iliman Ndiaye ñenn ñi sax la ne ni Aliou Cissé ban problème la ak ak Iliman Ndiaye en fait. parce que mm-hmm. jour boo xamante ni day football euh, tout le temps chaque week-end day football quatre-vingt-dix minutes. Mm-hmm. nekk championship te championship bi ñëpp xam nañ côté rigueur côté physique. Mm-hmm. côté euh, côté spectacle dafay dafay am ndax. xëccoo bu métti moo fay am. muy tenir mën baloo au est-ce que moom ci xelam juumul dans la mesure où bi mu sentir nii par exemple Sénégal mi ngi commencé di dominer ndànk Hollande Hollande yi di commencé di douter est-ce que foofu ci xelam gisul nit xaaral ma ñëw jéem a dugal looloo tax mu dugal ñaari attaquant yooyu est-ce que foofu tactique am naxu ko foofu tuuti est-ce que foofu waroon xalaat renforcer milieu bi pour samp niil au moins parce que 4 minutes moo des si match bi ñu dugal waaw xam nga moom euh, gis nga Sénégal. Mm-hmm. li may wax moom lu xaw a maanaam jumloo nit ci li muy def dafa yomb. Mm-hmm. parce que critiquer mhm. dafa yomb critiquer moom yomb na yow li ngay def ni rek mën naa la ci critiquer su ma mhm. neexee parce que xam xam nga critique mhm. dafa am ay façon mën nañu am na ñaar am na yoo xam ne am na boo xam ne c'est pas constructif am boo xamante ne c'est constructif mooy bi nga xam ne da koy wax pour nit ki parce que nit matul nit ki li mu jàpp ne moom moo gën moom lay def ci fi xelam toll donc euh, pour wax ni juum na il va falloir ñu maanaam ba ñu gisee lool lañ mën a wax ni juum na mais bu ko defoon mu dox duñu wax ni juum na gis nga yooyu ay choix la rek. Mhm. ay choix la. Mhm. Euh, moom. ndax choix yi baax na quoi selon yow. Euh, choix yi bon bu ñu xoolee résultat bi da nga naan choix yi baaxul. Mhm. da nga naan choix yi baaxul da nga naan. mais côté côté tactique quoi en fait côté non loolu la waroon def dafa génne. loolu la waroon non loolu la def. mais est-ce que loolu la waroon def sa xalaat ko laa bëgg a xam. waaw mais xam nga sama xalaat mooy li may wax encore une fois gis nga coach dañoo dañoo ñoom ñëpp dañoo bokk li ñuy def. mais dañoo wute ci ni ñu koy defee. am na koo xam ne bu doon moom la danaan man damay dugal Famara Diédhiou yow bu doon yow kan ngay dugal par exemple. Euh, bu doon man man depuis deuxième mi-temps depuis deuxième mi-temps laay changé système xam nga lu tax. kan ngay lan ngay teg bu dee deuxième mi-temps. voilà deuxième mi-temps bi sama milieu défensif bi. Mm-hmm. au moins. Mm-hmm. comme xam naa ni Kouyaté il faisait l'affaire. ba mm-hmm. boobu noonu xaw ma woon ni wala ma bàyyi ba heure de jeu. ma génnee Kouyaté soit wala ma génnee Gana dinaa ci génne dinaa ci génne kenn. def ñaari milieu défensif deux pistons. ma indi benn milieu offensif parce que en fait bu ñu xoolee match bi déroulement match bi des fois. match da ngay ñëw nga teg coach bi teg. Mm. ngeen am réalité mais nga dem ba ci biir nga gis ni ci biir match bi am na beneen réalité bu am. léegi foofu noonu ordre tactique mooy am parce que Van Gaal en fait loolu la gagné match bi. Mm. dafa dem ba xam ne fii mënul woon gagné mu am changement yu mu def pour dugal kon da ngay naan changement yam ont été par rapport ak bu Aliou Cissé. Mm-hmm. donc bu doon man la. comme kay xam naa ne il avec trois défenseurs. en général dañu naan équipe buy jouer ak trois défenseurs bu fekkee da nga da nga bëgg dominer bëgg a gagner te nga gis ni def nga ko ci benn mi-temps bi doxul il faut nga dugal ñaari il faut nga am ñaari attaquant au moins parce que ñaari attaquant yooyu ñoom ñooy permettre ci ñoom ñooy mën a sonal deux def deux deux défenseurs yi kenn ki libre mm-hmm. parce bu fekkee tey Boulaye Dia boo xoolee moom kese la woon contre kan contre Delic contre euh, Van Dijk mm-hmm. ak Ake mm-hmm. donc ce qui duel yëpp boo xoolee sur le côté la mm-hmm. maanaam euh, Crépin moom duel ak Ismaïla Sarr Ismaïla Sarr moom moo tax euh, Delay am carton carton yu bëri mais Boulaye boo xoolee il était très esselé benn tir deux tirs la am te deux tirs yëpp mi ngi ko am à partir de deuxième de deuxième mi-temps donc foofu lecture la woon Aliou se waroon gis ni ñii dañ ko ragal li mu defoon chemin bi mu tegoon dox na donc foofu mu risqué la mën nañ ko woowee mu risqué la parce que kee dafa risqué gagné maanaam mu risqué la muy def na dara dox na léegi na ko na na na dindi benn milieu défensif dugal benn pivot wala mu dugal benn deuxième attaquant pourquoi pas Iliman Ndiaye comme ça mu nekk deuxième attaquant pourquoi pas Bamba Dieng wala pourquoi pas Famara jeeju comme ça mu nekk deux attaquants comme Delay il avait déjà reçu un carton jaune sur une tacle de de sur sur sur sur Ismaïla euh, mm-hmm. donc boo dugalee Famara jeeju tey mënoon na nekk euh, parce que Delac ñëpp xam nañu moom il est dur sur l'homme marquage du taxaw ñëpp di lay def léegi Famara Diédhiou ak dooleem ak taayam mënoon na jouer rôle pivot nga bàyyi fa Boulaye parce que Boulaye loolu la doon jouer ak Sadio Mané. comme ça kay day jouer pivot di nga mën am deuxième attaquant boo xam ne au cas bu fekkee dafa pivoter joxe bal bi kay mën mën na am occasion bu fekkee jeu en profondeur au moins benn milieu défensif bi nga. dina la mën a permettre nga amoon beneen élément offensif mhm. donc au lieu ngay am trois éléments offensifs voilà di nga am quatre éléments offensifs mhm. donc man je dama yà moom dama yaakaaru noonu lay def mais je me dis que dafa am une audace défensive mhm. boo xoolee Aliou Cissé équipe am bi ñuy am défensivement maanaam défensivement la ñuy gën a baax ko offensivement mais je me dis que yow défensive boobu noonu bu ko amoon tuuti changé ko mu nekk yow yow audace offensive man je pense que ni équipe yu bëri dinañ ñu gën a sóor parce que équipe yi dañuy sóor dañoo ragal dañ koy wax peut-être nit ñi dañ naan non non football la léegi amatul la preuve sànq Arabie Saoudite wala na ko contre Argentine football dafa am fu mu toll d'accord nit ki mën na la mën nit ki mën na la mën parce que football au niveau dafa laaj lu bëri mhm. euh, li koy caractériser bëri na dafa am mm, joueurs yoo xamante ne dañoo nekk au niveau joueurs yi nga xam ne ñoom ñooy compétir le plus souvent seen club Ligue des champions tamp tout le temps ñoo ñoo koy jouer wala Ligue Europa mm-hmm. keroog bu ñu jëlee ñun suñu équipe et tout l'effectif jël effectifu pays ba bu ñu comparé ñaari da nga naan ñii ëppale wuñu dara mm-hmm. mais en fait ëppale ñu ëppale nañu joueurs yoo xam ne ñooy ñoo ëpp lu ñuy jouer au niveau mënuñ mm-hmm. ci dara dañ koy wax dañ ko dañ koy wax mais xam nga loolu lu koy lan moo ko mën a suppléer loolu noonu lu ko mën a combler état d'esprit buy indi dépassement de fonction dépassement de dépassement de soi ak impact physique mm-hmm. loolu donc moo ko mën a indi mm-hmm. sur le plan technique mm-hmm. ñëpp xam nañ Hollandais yi ils sont plus techniques que nous même bu fekkee dans le marché feeñul parce que ñoom dañoo amoon crainte boobu noonu donc ñun être dur sur l'homme être bien placé tactiquement ça nous a permis de faire face mhm. mais ñun am na am na ay bal yu ñu yoroon war ko mhm. exploiter mhm. si on était plus technique que ça plus réaliste aussi. voilà dañ mais la preuve bi doyeng duggee bi euh, autant pour moi bi Memphis Depay duggee on a vu la différence parce que portable ci kaw. non mais da koy téye da koy porté provoqué parce que ñaari bi yëpp. ñu manqué woon nañ loolu quand même. non mais parce que manqué woon nañ kuy téye profil boobu di téye bal bi ci kaw. mais mais amuñu ko woon amuñu ko non yow am nañ ko mais mi ngi baa bi na ko euh, Pape Matar Sarr mën ko. Mhm. donc ñoom ñëpp mën nañ ko. d'accord mais bon suñu coach il avait choisi de jouer sur un autre mhm. registre moom moo tax mu mhm. demee nii. Euh, euh, bon boo xoolee tamit voilà. Ah. xaw na tane mais bon doxul comme ni mu doon comme ni ñu ko xamee parce que moom équipe nationale léegi gëj gëj gëj na si dox ah coom alors bu ñu wax demee ci match bii di ñëw euh, ndax ñi ngi si catal émission bi ñu leen fàttali ñu ngi dalal Mor Thiam coach Mor Thiam. Mor Diagne Mor Diagne plutôt Diagne ñaar ah. donc mm, yow xam naa fi amoo fi kal ndax yaakaar naa faale ni ñëw si kal ah. ah. bon bëri naa fal faaleen. Ah, meng faaleen mengeen jengeen. waaw Diagne dafa xaw a bëri kal nag. d'accord d'accord alors xam naa yow moom souvent parce que voilà dañuy soxla genre yi nga xamante ni li ñuy wax dañ ko maîtriser et qui mm. la donc xam naa du ñàkk vendredi bi di ñëw euh, avant match et après match lañu ñëw fii ñu def analyse def jàngat bi incha allah rabbi mais bu ñu ñëwee par exemple ci match bii di ñëw Qatar dafa dañu ko dóor mm-hmm. euh, pays organisateur euh, Sénégal war a dajeek moom est-ce que gars yi ni bon Qatar ñoo ko mën est que tamit Sénégal du am benn pression bu ba mel ni pression tamit ci moom ci boppam pression boobu boo xamee ni dafa war a dóor obligatoirement. rigide waaw mais c'est c'est c'est bu ñu amee pression. Mm. mais bu fekkee pour man euh, mën na nekk pression gis nga pression. Mm. <coughs> baal leen ma euh, pression ñun ñoo jàpp ni pression dafa dafa dafa négative. Mm. mais pression am na pression yu positive. Mm-hmm. gis nga au niveau. maa ngi fàttaliku bi may bi ñuy def masteur à eh, l'INSEPS master en management du sport à mm. l'INSEPS fii nii de Dakar au passage ma leen di nuyu mm. voilà amoon naa benn prof bu ñuy woowee euh, Mama Saw mm. nekkoon ancien euh, ancien directeur technique national euh, fii au niveau de la fédération sénégalaise yo yooyu année deux mille moo ma yoroon benn matière benn module bu ñuy bu ñuy bu ñuy tibbee mm-hmm. psychologie du sport mm-hmm. c'est-à-dire psychologie sportive mm-hmm. gis nga dafa am loolu ñun mooy suñu problème en mm-hmm. africain rawatina ñun sénégalais boo seetloo nga baal ma def parenthèse mm-hmm. euh, suñu sa saa suñuy suñuy athlète saa yu ñu demee au niveau mën nañ tenir mën nañ taxaw di taxaw ñu demee bu ñu demee ba ci cappaandaw gi wala bu ñu demee ba affaire di waaj a geex tout le temps dañuy lâché mm-hmm. loolu c'est pas que physique parce que ñi ngi football ci fu baax am nañu lekk bu baax am nañ toppatoo bu baax ak yooyu noonu mais c'est sur le plan mental peut-être loolu nañ ci même Bolt. Usain Bolt jamono yi muy mën a daw dëgg-dëgg. gis nga fecc yooyu mu doon fecc des mu def nii des mu ñëw xam nga tappate kenn wala wax yooyu noonu maanaam pression boo xamante da ko doon positiviser. cest à pression bu négative day nekk ci bopp bi. Mm-hmm. mais moom mooy xam nu mu koy génne loolu c'est c'est yow c'est propre à tous les sports tous les sportifs de haut mm-hmm. pour retrouver waat fii pression bi. Mm-hmm. mun na positif xam tax muy positif a vu des cas yu départ bu baax. Mhm. comme c' était le cas en bii passé en 2018. Mhm. première victoire la ñu am premier match première victoire deuxième match nul troisième match défaite après ñu toog. Mhm. donc gis nañ yow Espagne en 2010 premier match contre Chili défaite après mu mujjee jël coupe bi. Argentine tey am na défaite mhm. donc il va c'est que bi mhm. da lay teg pression bu baax mhm. normalement boo xam ne da nga naan léegi sa carte yi nga yoroon yi nga yoroon ci yi nga xamante ne mënoon nga jouer ay nul ak wala jouer ay carte yooyu amatu fi da ngay gañ wala nga toog sa à dire bii gañ bii perte la amatu looy calculer je dois gagner automatiquement donc pression bi mën nañ ko jël transposer ko de telle sorte dañ naan non faut pas se dire qu'on a la pression pour ñu teg suñu bopp pression cest on a la pression de de la compétition. Mm-hmm. et la compétition demande qu'on ne peut ñaari yoon mm-hmm. même erreur def nañ benn erreur kon mm-hmm. waruñu defaat beneen erreur. donc pression bi dañ koy positiviser fexe ba def ko. def ko mu nekk énergie ba nga xam ne xam nañu ñoom Qatar mii ñu jàmmoonteen ak fu ñu mënti jaar li ñu wane contre contre pays ba mi nga xam ne moo war moom lañ jàppee ki gën a baax ci poule bi ñu wane loolu noonu sur des erreurs individuelle ñu ñàkk match bi kon xam nañ ci Qatar mii nii mën nañ ci moom lu ëpp loolu mm-hmm. léegi loolu dafay dépendre nag mm-hmm. ci coach bi loolu yëpp liggéey coach bi lay doon ci loolu laa bëggoon a euh, waxtaanee dans le par exemple yow selon yow ban système de jeu la war a teg sinon ban onze de départ la war a teg match bii di ñëw parce que match bii c'est attaqué en fait dañu war a attaqué c'est vrai que waruñu attaqué aveuglement mais war nañu attaqué quand même pour au moins premier mi-temps ñu fexe dugal benn wala ñaar pour mën a libérer jaar mais kooku mënta a mhm. attaqué mhm. yow instant mhm. ñaar ñooy gagné. Mhm. ñoom ñoo tolloo mhm. dañoo am plus 3. Mhm. ak plus ak ak dañoo am 3 points ak plus 2. c'est-à-dire 3 points ak deux bi ñoom ñoo tolloo foofu ñu nag ki ñuy dajeel dañoo am moins 3 c'est-à-dire 0 point moins 3 ak moins 2. donc yow tu as besoin de marquer pour am plus 1 parce que bi yooyu ñuy xeeb ñuy wax plus 1 plus 2 goal average li ñu woowee goal average général. mën nañu handicapé sax. day compter après donc bii. on a l'obligation de marquer. Mhm. pour yow pour yow nga baal ma temps bi moo ñu xaw a xot nga baal ma. donc dinañ mhm. ci gën a yaatu la mais on se débat selon yow ñan ak ñan la war a doon en fait. non surtout fois euh, Kouyaté demul euh, Abou Diallo. Abou Diallo demul non dafay reconduire yow Ismaïla Jacob. Mhm. bu reconduire Ismaïla Jacob euh, comme il n'a pas le man man bon Pape Abdou ko génne ba ci kanam. Pape Abdou Cissé nañ ko génne ba ci kanam s'il le mu. jéem a indil ma euh, jéem a indi Formose. Formose Mendy parce que à Amiens n'oublions pas que du jouer kese latéral day jouer ak central. Mm-hmm. même bu fekkee ça ça va être mais je pense pas ni Qatar war ñoom war nañoo mën a indi problème défensif boobu noonu ba ñu am problème boobu. Mm-hmm. nga boole koog suñu capitaine muy Kalidou Koulibaly à droite Sabaline Sabaline ne bouge pas mm-hmm. maintenant là-bas tu mets Nampalys Mendy. mine de rien tu sors Gana. sors Euh, partie 6. partie 6 et euh, tu parce que on a besoin au, au, de terrain on a euh, on sait que ces trois-là. Mm -hmm. que ce soit Nampalys pour sortir les ballons et épater et Pape Matar Sarr il, peut faire le jeu parce qu'ils l'ont fait lors de notre. mais par rapport ak. Euh, mais est-ce que mais est-ce que ñàkk compétition boobu suñu match amical bi contre boobu lañ gën a kontaan contre Bolivie du ah, moins. mais li Coupe du Monde la Coupe du Monde la koy dajeel. Mhm. kan ngay dajeel. non ki ngay dajeel. non non kan ngay dajeel. Qatar Qatar ngay dajal mm-hmm. Qatar dafa am loo amul. Mm-hmm. Qatar mën na la ja Iliman foo koy teg da nga ko bëgg a teg tegaat si banc. Iliman Ndiaye non day day day. day ñëw day ñëw Ismaïla Sarr. Iliman Ndiaye mm-hmm. Ismaïla Sarr. ak euh, ak ak ak Boulaye Dia. Boulaye Dia nga génne Crépin mu toog xaar nga mu toog. pour deuxième mi-temps. waaw parce que tu as besoin de marquer ak Iliman c'est que en fait xamul tax may associer Iliman. ak euh, ak euh, kii Boulaye Dia. Boulaye Boulaye Dia boo xoolee bu doon joué ak Sadio Mané Boulaye moom day mën a mën nañ dédoubler mm-hmm. maanaam mën nañ def dépassement de fonction ku nekk cest à mën na xaar mm-hmm. Iliman bu mën na xaar circuit il joue bien prise de balle yu baax technique c'est un jeu mais il va falloir coach bi jox ko <laughs> chance ah, mais mais amuñu problème gars yi amuñu problème mm. c'est juste que Aliou. Mm-hmm. Aliou mm-hmm. dafa nekk nit koo xamante ne c'est-à-dire <laughs> ni ñu koy dëgër bopp mais xam mm-hmm. nga xamante ne ñoom ñoo rey seen bopp ngir moom mu rey seen bopp ngir ñoom donc avant muy teggi loolu noonu il faut mu am raison bi tax mu war teggi ñooñu ñoo ko jëlal donc ñee même bu ñëwee même boo xoolee changement yi mu def c'est-à-dire bu de loolu dafay am ci ay nit boo ma defalee dara dama lay wan defal nga ma dara. bañ dem ba ci biir su ma demee nag ba di la teggi. yow da xam ne man dama am raison wu teggi la. Mhm. léegi doo ko dugal ñeneen mais bu fekkee dama ñëw automatiquement génnee yow mi ma gañal ma dugal ko bees léegi bu doxul man quand j'aurai besoin mais sur le mais loolu a doxee tamit a joxe ci ay ay ay sentiments defal lii bi ku demandé loolu lay jox sa sens parce que. yàgg nga ma xeexal est-ce que football ci loolu la war a doxee. bu doon ci loolu la war a doxee Saliou <laughs> non Saliou Saliou Ciss cas à part mais football loolu dañ ah, ah. loolu même football li gën a garaaw ah. en organisation en tant que tel loolu la ñuy woowee empathie dafa mm-hmm. baax mm-hmm. gis nga motivation nit dafa am façon loolu tam dañ koy jàng ci kii la bokk gis nga nit dafa am lu bëri nu koy motiver. Mhm. dafa am ñoo xam ne tu les par les sentiments. Mhm. dafa am ñoo xam ne tu les par par une mhm. euh, dafa am ñoo xam ne tu les par le bâton li nga bëgg ci ñoom dañ koy am. être un leader mooy nga war a xam yow ku ci nekk fan nga koy jaar. te Aliou Cissé il le sait. d'accord nañ lan ngay daanelee dinañ fi ñëwaat gën a waxtaan ndax a Euh, waxtaan tellement que dafa dafa neex ba temps bi mujjee gaaw mais a wax waaw waaw waaw waaw xanaa di am mbégte déjà ci invitation bi wax dëgg yàlla di leen sant di leen wax seen liggéey seen liggéey rafet na mhm. lii dafa baax tout le temps ñuy waxtaane ku ci nekk mhm. di waxtaan li mu xam Sénégal defe naa loolu fi xaw a manqué mhm. ku ci nekk dafa war a ñëw di waxtaan ci domaine am mais cela ne veut pas ka nga xamante ni domaine am la waaw domaine am la moo gën waaw moo gën li ñu naan xam-xamam màcc jëm defar réew. Ah. ak ci lu mu doon. waaw di nuyu ñëpp nag. di ah. nuyu sama euh, ñi may liggéeyal. ñi nga ah. xam ne ñoo nekk pro perfect. pro pro perfect sport muy coach yi mm-hmm. DTN bi mm-hmm. coach adjoint ak joueur yi nga xam ne ñoom ñoo ma wóolu nangu liggéey ak liggéey ak man. Mm-hmm. di sant tamit sama waa benn group groupe sport yow 7 sur 7 ñoom tam dañuy dund sport. voilà am na yenn information yu bëri sur le plan local ñoom ñoo ma koy jox. parce que man je suis plus axé sur euh, sur la scène internationale. information yu bëri waaw mm-hmm. ma leen di nuyu di leen saluer au passage mm-hmm. voilà di mm-hmm. di di di kontaan lool ci invitation bi wax dëgg yàlla merci beaucoup ñun ñoo la gën a kontaan ndax lu wolof naan fi xel yam xel tàmbalee na fa di dem moo tax euh, booy wax wala ngay wax lu nit wax ko lu mu xam donc nga siy mhm. nekk à l'aise macha allah je pense que internet yu sans limite dinañ ci jëlee jàngat euh, mhm. on aura certainement le temps quand même gën ci waxaat ndax match bi vendredi lay doon midi balaa boobu dinañ ci euh, defaat yeneen analyse yu gën a yaatu ndax ci diggante bi lu nekk mën na ci mën na ci xew mu nekkoon coach Mor Diagne nekk manager sportif conseiller sportif représentant nii wala mooy pro perfect sport vible sport euh, autrement loolu dinañ ci foofu dinañ ci dinañ ci ñëw ci beneen yoon waxtaane exclusivement ci ci loolu euh, mu nekkoon coom laay ay Aïcha ah, te subu kanja loolu indil ay ah, Aïcha borom bu leen tàngal bool bi coom borom gars yi bu leen euh, tàngalati ci bool bi bool bi bu jigéen tàngalati waaw bool bi ñun dañu am suñu jabar boo xamante ni macha allah ñun chaque heure añ dañuy indil bool bu bëri macha allah ah, day sakkan day bëri non léegi nag euh, suñu benn xarit boo xamante ne moom laa wàllu yaan si ab naar la moo ñëw tàngal ci bool bi waaw tàngal ko ba mu tàng yàq boolu jàmbur bi moo ne loolu du yoon waaw mu nekkoon com ay saa ci euh, coordination bi réalisation bi nekkoon Ousin ci présentation bi jaajëf jaajëf